Sasila dañu gis na yow dañ la doon boole ci ñi nga xam ne dañ leen di duppee ay détenu politique ñu bëggoon xam ñu gis na yow tamit def nga kaso ñu bëggoon xam euh, ci yan anam lañ la jàppee woon ak ci ban dossier nga bokk ndax dossier détenu politique yi léegi bëri na. waaw loolu dinaa sawar wax. Mhm. parce que mun naa ne détenu politique la parce que jàppee wuñ ma dara lu dul soutenir Ousmane Sonko. Mhm. dama japp ni si dëggoon si dëggam la nekkoon bañ bañ bañ koy soutenir. Mhm. suñ ko gisoon lu si lu ñàkk fayda duñ dem di ko soutenir jàpp nañ ñu côté cité kër góor gi mooy projet Mame Mbaye Niang bi comme nu ko sénégalais yu bëri defee nu ko patriote yu bëri defee amoon nañ yéene comme day dañ ko woolu tribunal ñu ne dañuy dem accompagner ko waaw si lañ dem foofu si côté cité kër góor gi après gars yi ndaj euh, ñu foofu dugal ñu si impasse jàpp ñu ñun ñëpp benn par benn après waaw nu mu nu mu demee ñëpp xam nañ ko dem leen téene dañ ñuy bàyyi comme defuñu dara. ñu ñëw doon ñu mandat dépôt. Mhm. waaw léegi mun est-ce que mën nga ma expliquer un petit peu seen film arrestation naka la demee woon. waaw comme ni ñu ko waxee rek mooy procès Mame Mbaye Niang bi. Mhm. dem nañ film arrestation bi biñ leen biñ leen arrêté dugal leen. waaw waaw voilà. waaw buñ ñu jàppee ñëw nañ euh, poussé ñu bañ dugg ci benn impasse ñu jàpp ñu buñ ñu jàppee dugal ñu ci oto blindé bi. Mhm. am nañ fay torture waaw am nañ fay torture yan genre xeetu torture mooy ñëw acharnement mhm. nañu yéen yéenay booy Ousmane Sonko yi yéen ñu sonal mhm. ah si oto GIGN bi yéen ñu sonal commencé di ñu dóor mhm. li tax ngeen topp Ousmane Sonko man réactionné wu ma maa ngi toog jàpp sama ñaambur mais am na ñoo xam ne ñu ngi doom téye kenn mu ñu teree topp Ousmane Sonko ñu dara ay sénégalais la Ousmane Sonko la ñu ne leen yaa ngi wax am na boo yoo xam ne dañ toj seen bopp dañ jël ay xeer dóor ko seen bopp mu toj quoi man moom am naa sens loolu daluma mais jot naa ay torture si laa jëlee yi ay séquelles yi yëpp sama loxo li yëpp ay baari dóor la moo tax tojuma mais sama ñeneen ñu ma àndool yëpp étudiants yeeg yooyu dañ toj seen bopp ñii am nañ fa ay kii blessure métti dóor seen seen yeeg yooyu te loolu man dama koy déplorer quoi pour man Sénégal la Sénégal pays de droit la nit su la jàppee ak loo mënti def war na la mën a yóbbu enquête la su nekkee yaa def ñu ñu ñu ñu ñu teg si yow daan su nekkee defoo ñu bàyyi la mais torture moom dañ koy ñaawlu quoi dañ koy naqaru loolu. ba léegi ci ban commissariat lañ la lañ la yóbbu woon. waaw man si commissariat fële la ñu yóbbu woon euh, Foire au niveau de Foire. gendarmerie Foire gendarmerie Foire foofu la ñu téewoon. waaw bi ngeen yegsee si guddi gi dañ leen defal enquête wala. waaw waaw bu ñu defalee enquête tamit mhm. euh, rafetlu ko. avocat yi après ñëw nañ. Mhm. ñëw pour euh, teewee sunu enquête. Mhm. mais mujj wuñ def loolu dañu bàyyi ba guddi ñu yeewu ñu yeewu ñu nelaw. si nelaw lañ ñu yéen ñëw lañ signé defuñu enquête sax. ah yéen da ngeen ñëw rek signé waaw dañ ñëw rek signé. ce que xam ngeen li ngeen signé. ndax xam ne lu ñu signé. ndax euh, lu ñu wax. jox nañ leen ngeen liir balaa ngeen signé. non wax jox nañ ñu liir. ndax dañu insister ne duñ signé. mais dañoo ñoom tam dañu insister ne da ngeen di signé par force amuñu temps bi. poussé ñu ñu signé. mais lu ñu toppee woon du dara trouble à l'ordre public lañ ñu toppee woon quoi. trouble à l'ordre public lañ ñu toppee woon grave. après si lañ dem bu ñu demee tam si juge d'instruction bi tam loolu la ñu wax xam nga lu leen toppee ñu ne ko ñun defuñu dara. Mm-hmm. ñaata retour de parquet ngeen am balaa ngeen. moom ñun amoon nañu am na ñaar deux retours de parquet. balaa ñuy defar ñaar retours de parquet moo laaj leen. wala da ngeen yegg si rek mu ne nga lu lay toppee ñu ne ko ñun xamuñu ko mu limal ñu lu ñuy toppee ñu ne ko loolu amul. Mm-hmm. mu ne ah mais da di jàll dem toog

Euh, lu lu lu lu jaadu mooy su la téewee même su la xañee say liberté nan la teg say conditions mais foofu paquetage bi mos naa ko. Mhm. mos naa paquetage bi mhm. guddi bi yëpp dañ lay naj te foofu garde yi euh, chef de chambre yi dafa am ay homme de chambre daa am nu ko organiser ñoom ñooy ranger gars yi. Mhm. dañ lay naj ba yow sa sa sa sa sa sa tànk yi yëpp di yëngu. premier jour deux heures de temps dama tëdd vingt deux heures à deux heures de temps kii vingt euh, deux heures à deux heures du matin. ma claqué mujj jóg na leen man dootuma tëdd fii quoi ñu ne ma for forcé da tëdd. man leen man mënu ma tëdd fii. après dama mujj noonu laa mujj xoolee ba suba teel quoi mais métti woon na trop trop trop. waaw mais feebar yi ñuy naan kaso dafa am est-ce que am na mooy ngas yeeg picc yu sew yeeg yooyu lan moo leen koy jox. waaw feebar bii man pour man kaso bi condition yi rek la ndax ndox bi 23 heures lay doog a ñëw. te imagine chambre comme chambre trois ma nekkoon. Mhm. lu mat 200 personnes. ñu war a sangu si guddi bi. 22 heures euh, 23 heures ngay commencé ñu commencé rang pour nit ñi rang pour sang mhm. ñu ci bari duñ sang da ngay gis ko xamné no top toog 5 jours yo xamné du sang loolu moy waral ki man mi bu ma génnee def naa ay traitement mhm. waaw ba légui am na ay séquelles yu may top mhm. ba légui am na ay ki yu may top maa ngi koy traiter quoi mais di wax rek gars yi condition yi fofu ndax metti na trop xalé yi ñu ngi fay souffrir dañuy am ay taab te soo demee tamit ci infirmerie ay comprimé rek la lay jox. soo leen waxee na leen est-ce que mun naa am possibilité ngeen bindal ma garab pour ñu jënd ma ko si biir ñu ne loolu amu fi ba pare du la faj faj bu baax loolu tam maa ngi koy dénoncé quoi. di wax yéen détenu politique yi nan ngeen doon dund ak yeneen détenu yi nga xamante ne ñoom ci leneen lañ leen jàppoon. waaw euh, day day day day dinañ la dinaa la moqué dinañ la dinañ asaar euh, na aussi yow. Mm-hmm. naan leen Sonko jaru ko. Mm-hmm. lii comme booy su leen paqueté guddi bi. Mm-hmm. gars yi ñoom comme euh, chambre criminelle la. Euh, ancien détenu yi ñoom dañ fay am dañuy am place. Mm-hmm. ñoom dañuy mokke booy naan leen ay lii moom Sonko jaroo ko di leen découragé loo ak mm-hmm. affaire yooyu mais booy itam da ngay gis tamit dañuy am seen courage. Mm-hmm. ne ñun ñu dara lu bon. foofu daal day am tendance. ñu ne détenu politique leen yàgg-yàgg dañuy génn. loolu moo nekkoon courage bi mais foofu moom du yomb xeex bi dafay am ndax patriote yi dañuy xeex ak gaay yi ndax genre wax yooyu noonu. lan mooy esprit patriote yi biir kaso ba ñu leen fay bàyyi est-ce que dañoo sonn découragé nañ ci combat bi ñu ngi doon jooy wala ci ci ban état d'esprit lañ ne ñoom. non man ñu ma gis foofu noonu xam nañ. Mhm. majeure partie du ma ne ñëpp quoi mais majeure partie xam nañ lu leen lu ñuy xeex. Mhm. xam nañ lan la mhm. parce que gisuma fa kenn ku découragé. képp ku bëgg a découragé sax sul la ne yow sul la dan lay yokk moral quoi. ne la day jeex. te xam nañ ni lii yàgg-yàgg euh, day jeex quoi te lii dañ ci am dam courage boobu lañ ci am loolu dañ dañuy forcer gën ñu joxaat doole. sa sa famille naka lañuy ñuy dundee euh, naka lañ dundee sa sa sa tëj kaso. waaw sama fami métti na méttiwul. parce que préparé nañ ñoom préparer nañ ko mentalement xam nañ ne à tout moment euh, seen doom si lu mu nekk nii à tout moment mun nañ ko téye parce que dëkk bi kun fi téewul kay la ñuy wax mais fii. Euh, pour ñu lu ñu fiy jàppee nit dafa yomb quoi motif bu ñuy jàppee nit pour man si dëkk bi dafa yomb mm-hmm. kon sa parents yeeg say famille ak say jabar Euh, tout le temps danga nga siy waxtaan ak ñoom soo ba soo ba soo bëggee mu yomb da nga siy waxtaan ak ñoom ne leen à ah, tout mun nañ ma jàpp. mais dem ak ñëw bi indi lekk beeg. yooyu la xa kii dëkkandoo yi sono duñ leen ak yooyu. waaw loolu moom mënul ñàkk moo tax léegi di masawu famille bi yëpp. di masawu parents yi di masawu soxna ndax sonn nañ jaabante bi foofu yóbbu añ ak yooyu noonu dafa métti. Euh, père de famille koo xam ne mooy moo moo yor këram nga tëj ko ay mois nga tëj ko ay mois chaque jour lekkam di ñëw ak naanam di ñëw joxeetul joxeetul dépense mo joxé ñëwaat di di di lancer appel. moy euh, ak yoy ñu ñu yolomal parce que fofu na ay père de famille comme ku si melni euh, sama copain ku Aziz. Abdou Aziz nya Abdou Aziz ku social rek lay waaw foofu noonu lu mu am bokkook nit ñi maa ngi wax su nekkee juge bi mu ngi may dégg lii nii maa ngi koy ñaan mu mu mu yolomal loxam si côté Abdou Aziz Niang moom laay wax bi ngeen nekkee biir kaso est-ce ki taxoon ngeen doon xeex est-ce que ñoom ñu ngi leen doon jàppale bu baax ci côté boobu noonu waa su nekkee côté boobu moom wax dëgg yàlla patriote yi wala ñu mu fa fekk mhm. amul kenn ku si découragé si côté boobu ndax su nekkee avocat mhm. gars yi pôle avocat lañ lañ lañ kii fexe nañ bépp détenu bu nekk am na avocat lay suivre. di xool sa dossier su nekkee wàllum euh, lekk gars yi manqué wuñ dara bañ nañ ko ba foofu sax euh, gars yi ñoom problème yu fay gën a am ak yeneen euh, détenu yi problème boobu la yéen dañ leen fuyal. Mm-hmm. lu nekkee ñëw saabu. Mm-hmm. saabu day ñëw pat lépp dara du manqué lekk yi dara du manqué wax dëgg yàlla côté boobu moom gars yi amuñu fa problème quoi. Mm-hmm. waaw mais nag bëri nañ bëri boo xam ne xëy na tam du ñëpp ñoo si mun a. Euh, bénéficié wu mais gars yi itam organisé nañ organisé boo xam ne comme ñu fi ne mel ni ñoom Diop Taïf ak ñun fa jiitu. Mm-hmm. ñoom organisé néeg bu nekk am nañ fa point foofu boo xam ne. xëccal micro bi. waaw am nañ fa koo xam ne teg nañ ko fa. Mm-hmm. ba lekk su ñëwee garde yi tamit côté boobu tamit am nañ si tolérance am nañ tolérance si côté boobu. Mm-hmm. ñu jox ko teg ko sa loxo. ñu fexe ba ñëpp boo yëpp di si jot quoi. waaw est-ce que li li xew yëpp am nga ci regret bu gé bu démb doon tey ak kaso bi nga dund yooyu yëpp est-ce que tey bu Ousmane woote waatoon est que jaraloon na amoo regret ci bi nga génnoon euh, topp ci projet bi ba tey nga def ci. cinq mois de prison non dëgg yàlla aw ma dara dara dara dara lu may regret su ma que dama gé dama gëm su ma génnoon si lu ñàkk fayda. wala ñu jàppoon ma si lu ñàkk fayda ay agressé wala affaire yooyu noonu dinaa am regret. mais man dama jàppoon ni benn euh, sénégalais la comme man. ma gis ni ñu koy neewal doole ma jugoon pour soutenir ko quoi te man ku ma xam fu ma dëkk xam na ni man si loolu laay dox waaw man mënuma ma fekkee ñaar ñuy xeex te xooluma kan moo si kan lañ si tooñ ma jàppale ko loolu rek moo ma moo ma moo ma dugaloon si kon yow yaa ngi soutenir Ousmane Sonko maa ngi koy tey laay gën a taxaw si ginnaawam di jàpp ni Ousmane Sonko fu mu nekk noonu di ko wax mu mu saxoo muñ quoi ndax ñu baax ñëpp tëj na leen kaso mhm. fii ñu nekk nii dafay reportage bi borom dëkk bi tëj nañ ko kaso mhm. ah baax ñëpp tëj nañ leen kaso moo war ne kaso da lay gën a yokk man moom wax dëgg yàlla loolu laa si génn man pour man kaso bi ma génn daf ma gën a yokk mais wàññiwu ma quoi mhm. loolu laa koy mu te xam ne yoonu ndam du gaaw mhm. man loolu laa koy nekkul benn gàcce boo xam ne sa koñ dañ la koy xoolee naan kii dafa jógee kaso ak mhm. yooyu euh, regard euh, nu mu tërat ci société bi ci yéen waaw amul dara lu muy def ci yéen est-ce nekkuñu leen di leen ŋàññeeg yooyu kaso gàcce la woon non man pour man du gàcc xam nga man fan moo tax du gàcc si man parce que euh, nek si ginnaaw Ousmane Sonko dafa metti parce que ding ci dégg lu nekk. mais wul parce que buñ ma jappé wa Pastef sétanuñ ma wax deug yalla di wax waa Pastef euh, Grand Yoff euh, bek euh, ak ñom ñep ak Pastef en manière générale ñom taxawu ci ñëw nañ ba sama famille gis sama jabar masawu ko bàyyi fa xaalis bàyyi fa lepp manqué wuma dara man buma nekké fofu ba numa génné lepp lépp parce que waa Pastef ñoo yor quoi te loolu da waa koñ bi yëpp dañ ci teg seen bët ba bu ma génnee pour man sama popularité sax dafa gën a yokk parce que ñu xamul woon ni man si passef laa nekk sax bu ñu nañ xam jege si ba pare xam ni chaque jour ñuy témoigner ne waa Pastef ay ay góor la yu mosuñu ko gis si euh, si politique si parti politique ah mosuñu ko gis si parti politique dëgg la euh, sa dernier mot waaw sama dernière mot li ko wax rek mooy euh, pour man Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñun ñëpp ay sénégalais lañ koo mën di nekk rek sénégalais nga ñu wax euh, ñi opposition bi delloo seen xel pouvoir bi delloo seen xel ñu organiser ay élections yu leer sénégalais yi tànn que le man loolu laay lancé appel boobu laay lancé euh, ñu nekk acteurs yëpp na leen ñu delloo seen xel Sénégal benn bopp la ñu def ay élections yu transparent que le meilleur gagne quoi. incha allah waaw Sénégal day continuer. jaajëf waay waaw jaajëf. Euh, Kewoulo mu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi leen di fay di <laughs> kontaan si émission bi.